suñu moomeel TPTV télé askan wi TPTV suñu moomeel les fidèles téléspectateurs de la TPTV maa leen nuyu di leen ziar am mbégte contentement jàkkaarloo ak yéen comme ni ngeen ko gisee ñi ngi fii nii appel Seydina Limamou Laye

lekk kii na doy na lépp doy na daal. mais sëñ bi tey ñi ngi waxtaanee ci li nga xam ne defe naa ne thème bi bokk na ci li nga xam ne mooy senegal suñu jàmm réew euh, lan nga ci wax. li ma si wax gars yi ni bàyyi ñu lekk ni dund suñu jàmm moo gën te bàyyi manifestation bi loolu laa gis man. ok waaw merci. asalaamaaleykum sëñ maa ngi lay maa ngi lay fay di la sant di la gërëm di dooleeg sant bu baax a baax a baax. Mhm. tur bi naka la. Lamine Laye. xoolal bii Lamine nee na nga xool gisee appel bi tay ak nan nga koy dundee. ñuy sant Seydina Limamou sanju si barkeem ñu fekk ko ak Seydina Issa Rouhou mii ñu jàkkaar lool du borom lépp fii moo koy ibbi de fii boo fi ñëwul boo demee fee doo am dara de fii ngay njëkkee de ñëw na ko ah Seydina Issa tàllal na la sunuy loxo boo demee si bàyyi laay mu man laa de teeru la kon fii la ñu njëkkee de mi ngi nii kii mooy Issa Rouhou Laye ibnu Maryama waaw jàmbalaayu yoof bi boo ko gisee li ko waral mooy ñun ay doomu lébu sunu maam lébu gaal gu nu am gaal goo gis ñu am ko rek bopp gaaga ñoo ngi si bind jàmbalaayu yoof ñun ay lébu lan ay mool pile lan blouson yi mool yëpp ko am gaal gi gaal ga ba mu daj ñëpp blouson yi lan am jàmbalaayu yoof moo waral tey xale yi sama rakk yi indi seen blouson yi jàmbalaayu wane ne ñooma ñu na li nit ki li nga doon da koy gëm dëggu si ñu gëm ni mbooma ñun ñii ñoo ngi nii boo demee ba gaal ga ñëpp ay jàmmalaay yoof la yor bul soxo yi ñoo ko liggéey pour nag appel bi ak tamit géej gi gaal gi sunu gaal gaal goo dem ñoo si bind jàmmalaay yoof si bopp gaal gi waaw moo indi lii. alors ñu ngi nga sant li nga xam ne mooy euh, appel bi ndax gis nañ ne neex na trop macha allah euh, lan ngay tàggatoo. li may tàggatoo mooy daay. comme li nga ma wax léegi jàmm ji dëkk bi am jàmm nga bëgg kon nan xool si jàmmalaay gi loolu daay laay tàggatoo tamit di sant Seydina Issa Rouhou Laye doomu limaamul maxdu yu yonente yàlla bi di ko sant si sant tamit baayam moo waral lii lépp ak njaboot gi fi nekk ñëpp njabootu Seydina Limaamu Laay yëpp maa ngi nag ak njabootu sëñ baay Manta Ngom bi tax ñun ñun ñu doon ay laayeen tey sama maam maa ngi koy sant mi ngi fi ñu denc moo tax ñu nekk ay laayeen tey maa Anta Ngom bu du won mom tamit duñ ko doon ñong koy sante mom tamit lu bax ci mbuur yeen tamit ma ngi leen di di leen gëreum ya nañ fi yalla baye ay fekk ay dewen demen ngeen ngeen bay iwité ma koy wax. jërëjëf waaleykum salaam soxna si ñoom lay fay bu baax. tur bi naka la. ma ngi tuddu Seyna Jibril fay tay mu fekk la fi nga xamne moy appel bi nan ngay dundé appel bi tay wa kess bu do bu mu mo nuyo ñep di sant ñep xam nga bisu jaamu yalla mom bisu woote la ba ñu wootee jullit yëpp ay war a wuyu man maa ngi jugee bay géej waaye tey ñu wuyu si appel bi xam ne yoon bi yëpp benn yoon yu yëpp si yàlla lay jëm voilà ñu ñëw fi ziar dazar ñu naan ñu si dëkk bi jàmm yàlla borom def si dëkk bi jàmm comme que ndax jamono yi moom dëkk bi yëngu na lool bu ñu ñaanee jàmm ziar si ñaanal ñëpp jàmm ñaanal suñu bopp ñoo ñëw daal ngir ziar ñëw bis bu tedd bi daal nga xam ne lu waaj ñaan moom am nañ si njort bu rafet borom bi subhanahu wa taala dañ ko fa incha allah nekk lu am solo tey yow en tant que murit euh, nga ñëw fii si nga xam ne mooy appel bi am na ñoo xam ne peut-être yow ni nga ko xamee ñoon xamee wuñ ko noonu dañuy naan juste que murit naan tiijaan lañ kon dañuy toog yow lan ngay wax ci loolu waaw loolu moom ñu ko wax moom foog naa dañoo xamul teggee suñu xam nga sëriñ bi moom xatalu leem ndax boo xoolee xasida yi sëñ bi lu mu ñaanal julli di daanaka ñaanalu ko sax euh, yoon mi murit bi nga xam ne yoon bi yëpp benn la xam nga ñoon suñu koñ suñu safar dañ koy def sak at te safar bu ko defee moom daanaka waxuma laay murit tijaan a laayeen mais daanaka ku dul jullit ak ku dul jullit ñëpp a ñëw doo si xàmmee kenn yàlla dimbali nañ ba nga am sens boobu loolu moo tax ñun moom xàmmewuñ si xaaj ak seen yoon moom da comme ni nga koy waxee si alxuraan rek jullit yëpp moom ay ay mbokk lañ voilà si mbokk boobu lañ ñëw feddali voilà xam ne ñu ko xamul moom dañoo gëstu rek mais yoon yi différenciation amu si yoon yëpp benn la te yoon yëpp si yàlla lay jëm kon daal loolu daal mooy defar jàmm nañ jéem a taxaw booloo yëpp nga xam ne daal différence amul sa euh, benn xilifa xaajul seen deful xaajul seen ñun ñëpp benn lañ nañu ànd bu ñu booloo rek incha allah yoon bi lépp na dina am jàmm incha allah. macha allah kàddu am nañ solo ñu gis ni tey thème bi mooy li nga xam ne mooy stabilité jàmm amaat ci xam ne mooy mi te gis nañ ni fan yi réew bi macha allah euh, xaw na xaw na li nga xam ne mooy yëngu te mu tombeek aussi thème bi mooy jàmm ak paix li nga xam ne amaat ci réew mi lan nga ci xalaat. waaw macha allah lool moom dañ koy rafetlu ndax euh, thème am solo la te dafa nekk actualité xam nga day wane ne kilifa diine yi ak kilifa euh, pouvoir temporel ak spirituel. différence amu ci voilà comme que situation mom jamono mom da nga soxla jaam ak beno tension bi yëngu dekk bi yëngu kon euh, dañuy rafetlu lol té di ñaan kilifa yi kam ñu yokku ñaan ci dekk bi parce que soxla nañ ko yiti woné ko lepp dal yalla def ñu jàmm ba activité commencé wat ci jam inshallah am solo ce euh, cadre mu ko baye nga remercier wa ma nga remercier ñep di ñax di sante ñep di ñaan lepp lu fi ñaan inshallah ya nako borom bi nangu defal ñu ñep tawfiq defal ñu gudd fa nak wér-gu-yaram bàyyi fi kilifa diine yëpp inshallah ñu sant bu baax jërëjëf sëñ waaw ma toog ak nag sama maman koo xam ne dafa jekk suuri lool macha allah ma bàyyi ko mu ñëw téléspectateur yi maman maa leen nuyu salaamaaleykum mbokki jullit yi maa ngi leen di ziar yéen ñëpp leen jox seen ci waaye di ñaanal ñëpp jàmm ci barke yonent bi tur bi naka la moom aji Sall macha allah moom tey ma fekk la fii nga xam ne yaa ngi toog jàkkaarloog jumaa ji euh, nan lan ngay dundee appel bi waaw appel bi moom maa ngi ciy am yëg-yëg bu baax a baax a baax a baax a baax ndax su ma nee tey jii man saalixaat laa mudit laa waa doon saalixaat taalibi sëriñ saali ba pare nag bëgg Seydina Limaamu ndax sopp nabi laa def sama kii man sopp nabi laa te c'est fii gis ma fi leen lu dul yonent bi nag moom rek laa yëg-yëg boobu rek laa fi am moo tax at mu jot ma fiy teew barki yonent bi at mu jot laa fi dama fiy teew si ndax yonent bi rek laa fi yëg barki Seydina Muhammad ñu am ñoo xam ne tey gis ni ngay gisee nii gisee wuñ ko noonu parce que dañuy naan man kat ah murit rek damay toog wala man kat la rek damay toog nan ngay nan ngay wax ñooñu nga xam ne ñu ngi xalaatee man ku may seetaan ni tey ji ci télé bi tey dina xam ne kii muy seetaan aji màgget mi saalixaat bu mag a mag la ku may seetaan rek dina xam ne man saali saalixaat bu mag laa taalibi sëriñ saali ku ma xam ne xam ne moom taalibi sëriñ saali laa waaye nag maa bëgg Seydina Limaamu man ma xam ne man su ma yàlla boole woon ma nekk taalibi sëriñ saali man fii laay bokk ndax am naa fi yëg-yëg bu baree baree baree bare damay ànd ak sunu waa marché nag am nañ dal ci biir mais man fii laa su suweete toog ci baas bii at mu jot fii laay toog jàkkaarloog jumaa ji julli ba julli fi gée ba naa fi la doog a dem ndax yëg-yëg ma fi am waaw barke yonent bi mu nekk lu am solo lool mu tey ñu indi thème bi nga xam ne mooy jàmm ñëwaat suñu réew mm-hmm. te gis nañ ni carrément euh, fan yi gis nañ dëkk bi nu mu jaxasoowee euh, nit yaa ngi jooy xale yi ñu ngi leen di sàcc euh, mu tombeek thème bu am mooy paix di ñëwaat suñu réew lan nga ciy wax gisoo lii ma def nii jàmm vert yàlla moo wax ne bu ñu bëggee jàmm nañu sol blanc te ci ver couleur l'islam la ku dugg fii boo ñaanee rek ñaanal nga fi jàmm ku génn ci biti boo toogee ñaan ñaanaale nga jàmm ndax kuy jaboot rek ja jaboot li ñuy wax jaboot jàmb mooy mbokkam même sa doom bu demul ci ay manifestation demu fenn tamit yàlla rek a xam da ngay ñaanal ñi ci nekk ak ñëpp yàlla defal leen jàmm boo ñaanee ñaa ngay ñaan réew mi yàlla wàcce ci jàmm wàcce jàmm ci àdduna bi yëpp ci barke yonent bi ñun jàmm rek la ñuy wër yàlla nañ ko suñu borom yàlla defal ndax jàmm rek moo xat ci ñun waaw dëkk bi dafa xat Sénégal dafa xat jàmm rek moo fi xat yàlla nañ ko suñu borom yàlla defal ñun ñëpp ci barke borom màggal gi ñuy màggal tey ji macha allah ñu bokk lépp lan ngay tàggatoo xanaa kontaan ci yéen rek di bëgg ci yéen di ñaan yàlla wàcce ñu jàmm ci àdduna bi yëpp yàlla defal ay xéewal yu baree baree baree bari nag ndaxte dëkk yàlla bu baax baax baax di julli ci di ñaan yàlla wàcc ci àdduna bi yëpp am jàmm ñëpp jàmm yàlla ñëpp am jàmm yàlla wàcce jàmm ci réew mi yëpp ci barke Seydina Mouhamed lépp lu fi tàng rek yàlla na ko suñu borom yàlla seral te yàlla jëleen ñu fi nag Macky Sall. waaw kàddu yi rafet na jërëjëf maman. asalaamaaleykum soxna si maa ngi nuyu. maaleykum soxna si maa lay fay. tur bi naka la. soxna Astou. Euh, soxna Astou tey fekk la fii nga xam ne mooy euh, appel bi nga toog ci géej gi euh, ban mbégte ngay ngay yëg ak nan ngay dundee appel bi. maa kontaan. Mm-hmm. franchement parce que ma nekk murid en même temps ma ñëw fii nii dama changé sax astu bi soxna astu laay laa tudd léegi parce que affaire moo ko jar baala moo ko jar. Mhm. Mhm, kontaan nañu. macha allah mais tey yow nga nekk murit ñëw fii nga xam ne mooy appel bi am na ñoo xam ne xalaat gisee wuñ ko noonu dañuy naan tey euh, murit lañ rek dañuy ñu toog ñii ne euh, tijaan lañ dañuy toog fu ñu toog yow lan ngay gisee loolu. parce que parce que genre xam nga xaw ma si lu bëri mais Seydina Issa mhm. Laay mu la Baay Laay mun naa ne mooy Serigne Touba. mañ ne ko ba xooluñu ni que amul laayeen amul murit dañuy boole seen dañu boole suñu bopp du coup man ma ñëw incarné wu nekk laayeen su ma génnee fi nekk murit mais ba tey événement bu ñëwee da ngay changé. oui laayeen yi kese. alors tey euh, bi nga xam ne mooy jàmm euh, stabilité paix. ci fii nga xam ne mooy suñu dëkk te gis nañ ni fan yi dëkk bi nu mu nu mu mel euh, lan nga ci wax parce que gis nañ ni thème bi am na solo te aussi coïncide na ak dëkk bi nu mu mel. Mhm, déjà rek dañ ñu te blanc mooy la paix.

kon ñu wax ci appel bi tamit tam lu am solo wax genre bi parce que ñun ba ñëw fii man xalaat manifestation peut-être dina yàq mais gisuñu ko fi mu yàq fi dara. waaw gis nañ tey lu bëri la ngay wax ci nga xam ne suñu président. ah man président <laughs> ah man lu ma parce que genre bëgguma dugal sama bopp mais lu mu def repousser élection yi si. Ah. voilà parce que maa ngi doon prévoir leneen si élection. <laughs> <laughs> cette élection yi maa ngi doon prévoir ñu amee fait élection dinaa mënoon reposer wu vu que je suis en terminale mën a nekk à jour mais le fait que mu reposer waat ko pour repousser ko ba ba novembre loolu d'accord ma si. rafet na sa kàddu bu ñëw ah maa kontaan rek di kontaan di sant Baye Laye bu baax sant baay laay di sant yàlla si lum ñu lum ñu lum ñu may ñun ñu gëm Baye laay sant yàlla bu baax si lum ñu def ay laayeen. asalaamaaleykum papa maa ngi lay ñu ngi ziare bu baax ñuy sant bi naka la. Gora Ndiaye. papa tey ma fekk la ci appel bi ma la wax nan nga gisee teewaayu appel bi tey. waaw appel bi da xanaa sant yàlla rek. sant yàlla rek sant yàlla bu baax a baax sax. waaw parce que chaque année ñu def ko. chaque année ñu def ko ren bu ñu yàlla mayee ñu def ko tamit dañuy santaat yàlla rek. waaw ndax xam naa ni ci daan def moom at mu jot ñu def lu ko raw. waaw mais kon sant yàlla. sant yàlla tey ñu gis na li nga xam ne mooy temu appel bi nekk euh, stabilité ci dëkk bi maanaam jàmm amaat li nga xam ne mooy ci dëkk bi te gis nañu fa yi dëkk bi nu mu mel euh, yëngu na te loolu def naa ne baaxul ci réew. waa mais loolu la ñuy ñaan loolu la ñuy ñaan man jusque toujours damay wax rek ni damay wax rek ni euh, senegal fi mu toll jàmm rek la soxla parce que kilifa diine yi nga xamante ni ñoo fi nekkoon jàmm la ñu sas jàmm lañ fi teg kon bu ñu demee bàyyi ñoog réew mi ñu nit jàmm lañ fi teg comprendre ba mais juste que damay euh, wax suñu président bi di ko xamal ni ko ñëpp kenn werante wu ni liggéey nga te réew mi bi nga ko fii jël da nga koo jël ci jàmm dara tuuruwul bal takkul kon booy delloo réew mi tamit delloo ko ci la paix rek jàmm bal bañ a takk kenn bañ a dee waaw parce que tey jii réew mi fi mu toll nii xaaruñu ko fi woon waaye aussi ñi ngi ñaan yàlla rek yàlla wi si ndox mu sedd guy guy guy ba élection yi ñëw ci jàmm ku nekk ku kuy falu falu ñu am jàmm. sama kàddu yu mujj nag xanaa di di di gërëm sama gars yi toog euh, Gora Niang Abi mbay Tafa mbay di nuyu nag groupe Jàmmalaay yëpp nag sama gars yëpp di leen nuyu di nuyu sama waa troupe aussi di présidente bi Marème fay ci kaw ba ci suuf maa ngi leen di jaare Fat Thiam ñoom ñëpp di leen nuyu di wax ni yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm. merci beaucoup ñu bokk lépp. comme ñu ngi fi nga xamante ne tey moom mooy euh, Cambérène ci 144e édition ki nga xamante ne moom mooy appel Seydina. Limamou Laye tey nag dama dugg ci sama mbokku artiste comédien yi ñi nga xamante ne saa yu ma leen gisee rek fierté laa am ak bu baax baax kii moom tey moom alaaji laa koy alaaji laa koy wax alaaji Cheikh Sarr nuyu naa waaw ndeysaan maa ngi lay nuyu Demba xarit bi mhm. mbaa yaa ngi am jàmm bu baax a baax alhamdulilah man maa la raw mhm. man maa la gën a raw ah. nice kay waaw tey nag moom damaa ñëw uniquement pour fekk si euh, appel bi nga xamante ne nii moom la maam Limamou Laye woote comme comme ni nga ko waxee sànq rek muy muy cent 144 cent quarante quatrième édition yalla boole ñu si ñu fekkee ko tey ñu wuy si nag suñu mbokk artiste bi nga xamante ne nii moom mooy Moussa Diallo. bi nga xamante ne nii moom wax dëgg neex yàlla dafa bokk ci ñun. te wax dëgg yàlla lii nii yëfu diine la te comme que tamit maam Limaamu Laay la woote ñu ñëw weex rek ànd ak ñoom. waaw allah daal gars yi nee nañu euh, tey moom yàgg na star gars yi quoi ci weex bi ni nga ko defee nii. waaw waaw waaw xam Euh, ma ne xaaral ma sol lii parce que tamit kuy waajal kuy waajal di dem ci bu diine il faut nga méngoog yooyu. waaw waaw waaw moo tax ma tudd ki nga xam ne moom mooy Moussa Diallo ñoo gis na chaque année ci appel bi day woo ñi nga xam ne ñoom ñooy artiste comédien fans yi xam nga ñu ñëw gisee ban yëg-yëg ngay am ci loolu. waaw wax dëgg neex yàlla loolu fierté la ci ñun quoi parce que tamit lii dafay niroo comme genre comme genre ndaje artistes yi parce que wax dëgg yàlla donte nag. appel bi moom moo ñu tax a jóg ñun ñëpp mais dafay nekk benn connaissance boo xamante ne ni wala boog ku gëjoon a gis sa morom boo ñëwee fii nii gis ko fi. waaw noonu lañ ko defee kër Kole Laay léegi léegi noonu lañ ko defee waatee kër Moussa Diallo noonu lañ ko defee kër Pëj Laay noonu lañ ko defee kër Mañoon Laay noonu lañ koy defee ci kër artistes yëpp wax dëgg neex yàlla fépp fu artiste nekk nekk laayam jàppal ni sa moromu artistes yi dañ dafa fekk saafonteeg yow ci bis bi comprendre nga ah ndokkeel la ci bis bi toogandoo ak yow jaamandoo yow yàlla ci bis bi macha allah la mooy kaddu yu mujj yi. waaw kaddu yu mujj yi mooy que ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax di leen ñaanal yéen euh, yéen waa site internet bu mag bi nga xamante ne nii. EP TV Caporal Info euh, ah, ñi nga xamante ne nii ñi ngi liggéey liggéey bu extraordinaire liggéey bu mucc ayib liggéey boo xamante ne wax dëgg neex yàlla ñëpp ci teg seen bët yéen tamit ñu ngi leen di ñaanal yàlla fi ngeen jëm yàlla na ngeen fay yegg ak jàmm incha allah di ñaanal yàlla tamit mboolem ku ñëw ci appel bi lépp luñ fi jaamu yàlla wala lépp luñ fi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla sottil ci barke Seydina Limaamu incha allah allah ndaanaan a wax ah, fekk fi nga xamante ne moom mooy euh, Cambérène toujours ci 40 144e appel ki nga xam la waaw a baax maa <laughs> ñu fekk la sa kër waaw sama kër ngeen ma fekk tey waaw waaw ban yëg yëg ngay am ci chaque année rek ci appel yi ngeen di daje ni waaw xam nga ñun appel <laughs> maanaam bu ne des na bu ne des na des na une semaine ci ci Sénégal la ñuy même bu ñëwul jàll dafa may jël si <laughs> waaw kon <laughs> moo tax appel bi wax dëgg fa neex yàlla euh, chaque nam daan mel rek la ma ren ci ñun waaw waaw allah waaw mais tey itam la lay def artiste comédien nga xamante ne tey yéen a ngi daje ay fan ñëw la lay def

ban message ngay lancer li nga xamantene mom moy Sénégal gis nañu jamono yi tam nu mu mel jeune jeune comme yow waaw jeunesse bi ñu and ak dal rek ñu and ak dal ñu and ak dal gis nga amna lo xamantene manam dafa gën lenn li waaw jamm lu dul lu dul mom moko gën yalla ñal defal jamm te jeunesse bi ñu ñaan jamm diko sakku it waaw ndax baxna trop deug la nak waye xex ben affaire bam bam am ndam nga fekke ko da ca bax te façon xexi ni bari na mën nañu xex mën nañoo xuloo te kenn du ci gaañu waaw nañu xool nañ changé méthode yi nañ changé yi te ñu xam ne suñu diggante ak policiers yi ñun ak ñoom ay frère lañu am na yoo xam ne mën naa ñàkk dëgg la liggéey la ñuy def liggéey la boo xamante ne yow mi nga xamante ne yow la ñu jàpp tey wala ñu def dafa la ñu def yow la liggéey yow mi ñu jàpp yow la ñuy liggéeyal ndax yaa leen soxla moo tax bu dul woon ñoom tey Sénégal fi ñun duñ fi nekk kon nag suñ ay force de l'ordre nañ leen di jaajëfal di di leen di kontaan seen liggéey di waxaat booy ne leen policiers yi ñun ak ñoom ay frère lañu li ñuy def du ñoom li ñuy def du ñoom it waaye nag nañuy bàyyi xel policiers yi policiers yi duñu bàyyi xel ñun it waaw ndax ñun ñun ñun ñu ni neen la ndax ñi xam ñoo leen ko sant bu ñu xëyee ñoom ñooy bokk benn teen waaye ñoom it buñ buñu wàccee ñun la ñuy bokkal teen kon nañuy sóoraale ñun it ñuy sóoraale policiers yi waaw. Thiam Michel fan ngay jox euh, rendez-vous fi ñi nga xamante ne ñoom ñooy seet. waaw di leen jox rendez-vous festival ACPA bii di ñëw mooy bu ñu waree ba am une semaine waaw inshallah allah festival <laughs> festival ak paa bi gars yi bàyyi ci xel <laughs> bay leen xel ci festival ay ca TP TV capral Info yéen a ci mën fouf mo capral nous somo garde vous. <laughs> Kan moy suñu nijaay ki ci samay formateur yi sax la ma sha allah ñu bay ko rek mu nuyo présenté wu askan bi. wa ma ngi ni askan bi. di jaar ñep ma ngi tuddu Mohamed Abdullah. tey ñu gis la fi nga xamante moom mooy sa kër sa kër sax laay mën a wax muy sàmba ah chaque année. Mhm. macha allah fii la nga daje. waaw fii sama kër la dëgg la parce que Moussa Diallo mii di organiser fii non seulement ñoo bokk troupe mais lu ëpp juróom benn juróom-ñaari at ñooy ànd di koy defandoo ñu nekk ci organisation bi ba tey suñu rek yi ñooy gérer liggéey bi donc sama kër rek la laa mun a nekk. sant yàlla la quoi. mais ñu gis ne bu njëkk ba dañ doon ñëw aju ci kaw étage comme en famille artiste mais tey ñu gis ne dañoo wàcc lépp ci suuf mu gën a yaatu yéen ak fans yi ñëw. waaw bi yaakaar naa li mooy troisième édition ñu koy def ci suuf parce que jaar nañ ko def ci rukk bi bale di bâche par fi ñu ne foofu day xat nañu génne bâche bi ci kaw tali bi jaar ci yoon laaj autorisation au niveau de la préfecture def lépp pour bañ a tooñ donc loolu moo tax fan yi ànd jàmm yi. parce que am na ñoo xam ne télé rek lan lay gis donc tey suñu jàkkaarloo seen xol yi day sedd donc loolu la woon quoi. ban message ngay jàllale ci jamono ji nga xamante ne tey Sénégal mën nañ ne sax xol yi neexul ban message ngay. yàlla dañuy ñaan yàlla rek yàlla mi man yàlla mii moom yàlla na yàlla defal jàmm defal ñu sutura. waaw loolu laa wax. kontaan nañ ko waaw. ñoo ko gën a jëf jërëjëf. maa ngi baax mon non wala du yow tonton libaas tonton ñu fekk la fi nga xamantene mom moy seen kër sax laay mëna wax muy kër famille boy may lañu muy kër gi nga xamantene ma sha Allah seen grand samba la ah fi ngeen di dajé chaque année di def li nga xamne moy euh tout d'abord ma leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jam diko sakku ci yeen di remercier site bi donc liggéey wam solo bi ngeen liggéey caporal info yalla ngeen don caporal ci walu mbolem site bi fi nek rek donc plus de vue plus de visibilité donc tout d'abord dañuy wax ci borom bis bi muy baylay alayhi mooy Rasulullah waaw mooy Rasulullah naa ñu ko dañ ko xamul waaye mooy Rasulullah di ñaan yàlla ñu fexe at yu bare bare bare ci barke Baye Laye Aleyhi Moussa Diallo nag donc buñ ko ñëwalee dañ ko war a ñëwal ndax ku xewle mu ñëwal Moussa Diallo tànkam nu benn artiste lu nit xewlee boo ko waxee Moussa Diallo dina ñëw même bu boo ko yëgalu bu ko yëgee feneen dina taal ñëw pour wax ne la yëgoo ma ko mais yëgaloo ko mais ñëw naa théâtre rek moo ko ñor ñi def théâtre kese mo la ñoo Moussa Diallo du kantu kenn du tankam nu kenn ay xewam sax yu sew do doo ko déglu bari ay ngenté yenn yi bu ko amee du ko wax nit ñi pour bañ leen sonal mais appel appel non da koy wax ñepp pour ñepp ñëwal té mom la am nit nak boko bëggé bëggee bëggal boo ko fay borom da nga koy fekk ci li mom ak ci li mu bëgg nga fekk ci ko donc loolu moo tax ñëpp jël lépp njàpp da nga koy bàyyi ñoom fekk ci bisam bi ni te appel bi aussi ren moy 144e fois bay laa liggé liggé bam solo boo xoolee Cambérène ni mu mel ñëpp weex la ñuy sol fexe na ba xàmmeewoo géwël xàmmeewoo géer xàmmeewoo pël xàmmeewoo tukulóor xàmmeewoo joolaa xàmmeewoo xàmmeewoo séeréer xàmmeewoo tijaan ñëpp weex la ñuy sol di noo noonu lan laa ilaaha illallah loolu mooy diine kon ñi ngi ñaan yàlla fekk at yu bare bare bare bare bari site bi déwén mu fekkaat ñu fi jëlaat ñu ñëw waxaat

mais président Macky Sall waroon pousse élection parce que histoire Sénégal benn président musul pousse élection nit ñi def seen ay milliards jeunes yi waroon liggéey xanaa xamoo élection présidentielle day développé dëkk économiquement parlant dëkk day dox oto day dox transport lekk ak naan day dox sachet ndox yi gis nii ku doon jaay sax da ngay dugg ci meeting jaay fa lu mu dee dee quatre sachet ndox am nga bénéfice borom casquette yi infographe yëpp day dox donc moo na bàyyi campagne bi dox affaire bu ko defee donc euh, économiquement parlant dëkk bi dox

kontaan nañ ci yow ka yàlla yàlla defal la jàmm def ci réew mi jàmm jërëjëf technicien ñu leen siyaaru baax a baax a baax liggéey bi am solo ngeen liggéey DJ Rona kontaan nañ ci yow DJ Rona ñu fekk fii ñi nga xamante ne allah ñi moom yaakaar naa ne a a baax yaay booy yaay booy nuyu naa la fay naa la ñu baal nga présenté yow du nga bàyyi nga présenté <laughs> fan si daa nga man la Oumou Chinois nekk nekk akopike waaw tey ban mbégte nga am fekk leen fii seen kër muy ki nga xam mooy suñu tonton Diallo macha allah chaque année ngeen fii daje tey ñu gis ne macha allah gën naa yàqu la nga ci wax. kontaan nag nit amul lu dul nit moroomu nitam mbokkam ndax Moussa Diallo dafa nekk ci aar bi macha allah nekk suñu papa yaakul dara nekk kilifa tey doxee di koy kilifteef moo tax bu am appel amee gëmul ku dul bàyyi laal amul ku dul bàyyi laay bàyyi laay woote dañuy ñëw këram wuy si ko macha allah ñu ñëw. mu berndeel ñu kafal ñu reetaanal ñu lekk nañ naan nañ ba suñu biir fees macha allah di ko ñaanal nag déwén yal na man lu ëpp di jëm ak Seydina Mouhamed yal na ko yàlla defal jàmm. amiin yaa lii itam eh, day ne ci xol fekk fii itam surtout yi nga xamante moom mooy seen fat si lan nga ci wax. kontaan rek parce que ci écran bi lañ doon gis tey yàlla dogal ñu gisante saafonte kontaan nit amul ku lu ku ko bëgg. nit amul lu dugg la nga bëgg parce que bu la bëggee looloo tax bu la nit bëggee gisante ak moom kaf ak moom reetaat ak moom ëllëg a tax. xew day am xew yi day am te ñun ñëpp benn lañ waaw. mais tey ñu gis ne itam euh, maanaam Sénégal itam neexul mooy li ma laaj ñëpp rek presque xol yi neexul politique bi nu mu nekkee mais yéen tey en tant que porteuse de voix ban message ngay amal ñi nga xam ne ñoom ñoo say fan. billaay xol yi neexul Sénégal métti na booy génn sax di ñëw say waajur seen xel du dal dafa métti trop fu mu ne nii bi may génn sama yaay mu ngi ma naan ndeysaan mooy tudd dëkk bi ndax dëkk bi wóorul di ñaan yàlla jàmm li may ñaan ne président Macky Sall laa koy ñaan. di la ñaan jàmm ak salaam génnal waxtaan ak jeunes yi jeunes yi naka la ñoo waxal àdduna xët-xët fajul dara yéen jeunes yi tamit maa ngi leen di ñaan bu leen dara jaral tayal seen live seen yaay leen lañ yéen lañ yaakaar seen papa yéen lañ yaakaar s'il te plaît s'il te plaît ngir yàlla ak yonent bi delloo si leen seen bopp te dal xeex ak xuloo fajul dara président ngir yàlla ñu ngi lay ñaan nga génn wax ak jeune Sénégal waxal ak ñoom parce que yow kese yaa a delloo di ñaan yalla yalla na jàmm yàgg yal nañu yàlla defal jamm ci barki sayyidina muhammad senegal jamm rek lañ ci bëgg dudul jamm jàmm bëgguñu ko waaw yal nañu defal jamm merci beaucoup Cheikh. na ngeen def. wa deggal lool <laughs> wa mais ma ngi lay ziar. nam nag la way fi la ëpp fi la may maa ngi sant yàlla baax. tey plan bi ma sha allah wa ndaysan ndaysan wa mom wa waaw waaw yoof moom fa de euh, yof kambarin wa bo fi ñëwee fekk nit sol lu weex rek. yaaka na day dagan. Mhm. wa ji contane bu baax baax ci téway bi ngeen fi téw waaw di leen jaajëfal bu baax a baax. gis ne da ngeen a ñëw seen kër sax laay mën a wax a mhm. nga ah, ñëw saafoon tey ñi ñëw tey. Mhm. ban yëg-yëg nga ci kontaan rek xam nit moom Diallo euh, danoo bokk lu mënta séddoo muy Madou ak Issa donc bu ma ñëwee Cambérène day jaadu pour ma ñëw ci këram loolu dafa doon loo xam tey bu amoon caare géej yaakaar naa day ñew yendok man sama kër donc loolu motax ma déplacer wu euh, ñew moo ko moo kolalaay ñoo dëkk Cambérène ma démon kër lay jóge fa ñew fi ci euh, euh, Moussa Diallo wa loolu dafa jaadu rek motax tax mu ñëw. mais fon si tay yaa ngi wa gisé gisee ngeen. Mhm. saa konte ngeen. Mhm. waaw mais mais loolu adina loolu xam nga nit yalla moy boole ay doomu adam ci anam bu nekk ñin ñi ñun ak ñom mënu ñoo ko ndax li ñuy def ñom ñoo ñu jëmmal ba tax ñun lu ñu mëna li ñuy def fess donc yéen aussi tamit yéenay fësal ñun ci lin ne kon donc ñun ak yéen ak ñoom fans yi kenn mënut a dem bàyyi sa morom kon donc buñ leen gisee dañuy am euh, mbégte rek mbégte rek lañ ciy am daal waaw. mais mhm. ban message ngay am ci ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, comme que ñu yéen ay mhm. gis na ne jamono ji itam Sénégal neexul. Mhm. politique beeg genre yooyu pousse élection. yow tey en tant que porteur de voix la wax say soppeeku. waa li may wax daal mooy réew mi jàmm moo fa xaj parce que yaatuwul parce que li may wax chaque jour rek. léeg-léeg nga jàppante ak doomu aadama ñu toog di leen euh, arranger mbokk feeñ fa. rawatina nag ñu dëkk réew mi réew mi xat lool. donc euh, li naan dëkkandoo jàmm moo ci gën. Sénégal boo dëkkee ndakaaru ndakaaru tàkkul Jurbel di tàkk wala Fass Mbaaw di tàkk fu mu mën a ne. ñàkku fa koo xamante ne ni tey jii sa mbokk même bu dul sa mbokk la yéen a bokk dëkk réew mi te euh, lu métti kenn ñaanalu ko yàlla kenn donc liy jik Sénégal mooy jàmm yàlla na nu yàlla defal jàmm ci réew mi euh, képp koo xamee aussi yaa ngi bëgg euh, jot réew mi bu gënee ci yow yàlla na la ko sunu borom yombal ci barke yonante bi waaw kàddu gu mujj gi mooy kontaan ci yéen rek di wax na lii dafa am solo ndax waa DEP TV ak Caporal Evo boo leen déplacé woo ñëw lii day doon mbégte ñu ñaan lii doon euh, loo xam ne day kawe ba jur télé parce que yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ci barke Seydina Limaamu buñ jógee ci ah ñu toog ak ñi nga xamante ne chaque jour foo leen fekk rek ñoom ñaar ñooy ànd ñu def ay diyo yoo xamante ne macha allah ñu gën koo xamee ci benn euh, boo xam ne mu ngi toj réew muy Sidi Erama ziar waa ñu ngi delloo ziar caporal di nuyu waa àdduna yëpp di nuyu waa Sénégal rawatina fii ñu nekk tey ci Cambérène ñu ngi leen di nuyu di nuyu waa euh, télé bi nga xam ci ñooñu fekk si. caporal info ah. ak TP TV. ñu ngi leen di sant di leen nuyu ah di leen encouragé ci liggéey bi. Mm-hmm. allah ñu bàyyi waxtaan ak ñi uh-huh. waaw xanaa du ñu wax dara lu dul lu dul di di di sant ñëpp di di gërëm ñëpp di ñaan yàlla réew mi ñëpp xam nañ fi mu nekk nii donc ñëpp ànd ak dal xam ne donc euh, tey li fi nekk yëpp donc suñu alal la. donc du alalu opposition du alalu pouvoir donc buñ ko yàqee suñu alal lañ yàq donc lepp lu def rek nañ ci and ak dal donc xamné ne euh, li fi xew neexul kenn waaye euh, yalla nak luko neex rek lay def sha allah. mais fi nga nek tay moy suñu kër grand. moy ki nga xam ne mooy suñu grand Diallo. Mhm. sa ané ngeen da day ci kaw lañ ko daan mais tay yaat gën naa yaatu sha allah. ban mhm. waaw loolu moy moy artiste soudé biñu biñu soudé rek parce que loolu moy deug damay faral di wax xam nga euh, léeg-léeg nga dégg nit ne artistes yi bëggantewuñu man dama naan ko yow yaa bëggante wu mais boo jàppee ne donc yow ñëpp bëgg nañ la yow bëgg nga ñëpp rek du am problème donc loolu moo fi nekk suude boobu mooy ni artistes yi doonee benn chaque année di ñëw di fekk fii Diallo mi nga xam ne mooy mooy suñu naataango ñu bokk milieu yu ñuy def noonu lañ fiy jógee di jaar kër Kolla laay noonu lañ fiy jógee di jaar kër Mandione laay ñëpp ñi ñu xam ne pëj ñëpp ñi ñu xam ne donc ay artistes lañ nekk fii dañ leen fii fekk njukkal leen seet si leen parce que suñuy nawle lañ waaw macha allah waaw wallaay ndeysaan ñu ngi ñu ngi ñu ngi ziar ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di wax ne rek maanaam bis bi dafay bisu mbégte di bisu lislaam waaye di bis boo xamante ne suñu book artiste bi ñu fii dajaleel euh, di Moussa Diallo dañ koy ñaanal yàlla yàlla suñu borom yombalal ko yëf yi ba bu déwénee mu koy gën di mën di wax ne rek maanaam tey nii mu fi dajalee artistes yi yombul sax ndax artistes danaka ñu dajalo ci benn bërëb rek dafa xawa jafé jafe dafa nek nit ko xamanteni mom bis bi la am bis bi lay tiitaroo bis bi dafa nek bis bo xamanteni dafa reuy lool ci mom ba sa bu ñëwee rek mu baas baas bu yanji bi togg ay mbana yu bari daal di li nga xamanteni mom moy wote woote maam mamulay bi kon dañ koy su mom tawfiq ya ko euh ñaanal ko dal jam ak wër di ñaan yalla tam jam am ci réew mi ndax yi gis nañ ne euh, sunu mag ñu bax ñi bu nu bu nu seen valeur rëccee rek du baax ci réew mi ndax soo xoolee démb ci àjjuma ji réew mi yëngatu na yëngatu goo xamante ne ñëpp tiitoon nañ ba lu tolloo quatre person yoo xamante ne yëg nañ ne ñàkk nañ ci seen bakkan waaye gis nga ko tey tey jii ci samedi gi réew mi daal di ne tekk ñëpp sol balan ñoo fekk si maam Limaamu Laay fii kon ñu ngi ñaan yàlla sunu boroom mi nga xam moo moo am jàmm jàmm am ci réew mi sax fépp di wax ne rek taana maanaam opposition ak pouvoir rek ak képp ko xam ne bëgg réew mi itam ñi ngi ñaan ngeen laaj ko ci dal waaye ñun ndaw ñi itam bu nu nangu kenn di ñu yóbbu ci ay yàq ndax yàq baaxul li fi président Macky Sall def buñ ko yàqee après moom mu jugee fi ñun ci suñu jëm ci suñu kaw lay këpp moo xam danoo yàq alali jàmbur moo xam ci banque yi la moo xam ci euh, fu mën a doon daal ci biir ak moom li mu defar defaru ko pour boppam defaru ko ngir njabootam ñun ñii la ko defaral kon kon euh, bu buñ ko yàqee kenn kii toogaat bu ñëwee tamit day defar defar bu métti rek. kon ñu ngi ñaan suñu borom ja euh, réew mi am dal ci barke maam Limaamu Laay barke mag ñi fi nekk ñëpp ak ñi nga xam te ne dañuy wax ne sëriñ si nan wax sëriñ si ñun sànni lu leen ñun ñun ñun sànni lu leen suñuy carte nekkuñu nekkuñu suñuy président waaye suñuy kilifa lañ ci wàllu diine kon réew mi kenn ku ne mën na cee wax du sëriñ si rek lañuy xaar ñu wax kenn ku ne war naa mën a génn wax ne nan nan nan woote jàmm nan def nangam buñ xaar sëriñ si rek wax ndax sëriñ si nekkuñu ay politiciens ñoom dañoo nekk seen i kër maam lanu toog seen noray maam la kon ñu ngi jàllale rek ñu ñëpp ñu dal te xam ne jox ma réew mi bu la jaralee rayante kon affaire bi am na luy loo xamante ne dafa ne ci suuf waaw jox ma réew rek bu la jaralee xeex kon am na lu ne ci suuf kon nañu ñaan yàlla réew mi jàmm am fi sax fi ba bañ koy magal ay ati ati at artistes yëpp am jàmm incha allah merci beaucoup jaaraama aja di jero na ñu toog ki nga xamantene mom moy suñu yaay sax la mëna wax muy ki nga xamantene ma sha Allah référence la ci théâtre sénégalais ko xamantene tay ay ati ati at mu ngi ci écran yi xam di ñu defal lo xamantene ma sha Allah ku ku ku ku sétan théâtre demb rek ma sha Allah ñi tam nga nga nga tam ci jamono tay ñu gisoon ne jamono tam ay tan bombe la daa a ci koor geeg affaire yooyu kooku mooy suñu yaay tatarama booy di ko ñaanal itam gudd fan bu baax a baax a baax a baax a baax yàlla na yàlla defal jàmm yaay booy nuyu na nga waaw maa ngi leen di nuyu di nuyu nii ñi seetaan TP mais muy naka ga ne TP TV maa ngi nuyu maa ngi leen di nuyu yéen waa TP TV ak Caporal Info waaye nag comme j'ai toujours l'habitude euh, de le faire man balaa may wax si dara damay dem ci sama papa ji El Hadj Abdoulaye Seck mi nga xam ne ku fi théâtre tey mbaa nga ñemee seen moom la ndax ba kenn ñemewul moo ko doon def def ci jamonoy kura def ci euh, am na beneen troupe tam ba jamonoy tey ñëw man ci jamonoy te la bokkee en 1974 kon nag tey ji man teraanga ju ma am dans le monde euh, artistique ak dans le monde du cinéma dama koy gërëmee El Hadj Abdoulaye Seck ak mon frère Momar Thiam cinéaste ak tamit Fadour Sarr mi nga xam ne moom a booleeg élage Hadj Abdoulaye Seck mu nekkoon directeur artistique bu tur bu juddu tey bu Pikine yow laay déglu. ayca tey ñu gis ne ki nga xamante ne moom mooy euh, da nga nekk suñu kër benn xarit. ko xamantene sa dom la ma sha allah chaque année mu ngi wote ci li nga xamantene mom moy buntu kërëm gi ni gis nga bu ñëk buñ daan ñoo sa ci kaw la ñu aju mais tay lepp yaatu na sha allah moy kanam moy suñu tonto Diallo ana la nga mo mëna wax li ma mëna wax ci Diallo moy tantam bi na ko def angal bele ba angal bi ndax Diallo ku am yëg la ku am yar ku am safo ku am faale ku am fulla ci boppam am fayda ci boppam man nag daf ma jël jox ma cëru yaay su fekkee dañoo tase ci festival yi fu ñu mën a tase dina ma jël aj ma ba ma gën a kowe kaw moo tax bi may jóg di ñëw guddi na sama waa kër yi naan ma yaay guddi na man leen nu ma mën a def su doon 9 sax danaa dem ba jàkkaarloog Diallo mu xam ne wuy naa ko ma doog a ñibbiwaat yàlla jox ko tam soxna su baax soxna su réglé soxna su dal soxla su mën teeru soxna su mën teral gan soxna su mën gunge gan jàllo nag dama koy ñaanal ci dara ji Seydina Mouhamed yàlla na egg ni yoon moom nag ak ñi ko wuy si ñëpp ndax man ji a fekk ni ndeysaan xale yi ñoom ñëpp samay xarit lañu xale yëpp samay xarit lañu ndax su ma duggee seen biir kaf geeg ree geeg te lépp terewul ñu jox ma gëddu yaay giñ ma war a jox di ñaan yàlla nag yàlla nañu egg ni yoon ah di nuyu tamit maam Thierno tubarkalla macha allah. di ñaan yàlla nag yéen tamit seen liggéey bi yàlla na ngeen liggéey bi yàlla na ngeen ci mel mooy dellu nag di gërëm suñu ministre tutelle muy monsieur Aline Sow ndax tubarkalla macha allah yàgguma commencé théâtre de 1974 rek la xaw ma ay 60 nangam yooyu lay war a toll peut-être yaakaar naa mais dafa def loo xam ne ba may nekk ci journée mondiale du théâtre le 27 mars li mu def ren ren laa ko gis ndax dafa génne ñaari bi yu Makka génne ñaari bi yu Rome ma cay gërëm nag sën seen bu ma nee sën seen tudd naa ay ñu jox ma benn bi jox benn bi yal na ko ci yàlla jàppale mais seen mention spéciale ah dina profité nag dugg ci beneen côté muy côté UDAC parce que ñu ngi préparé benn soirée boo xam ni tubarkalla macha allah Kéba Seck la ak tamit moom dañuy dans dañuy dañuy théâtre waaw le 16 la incha allah initiative bi nag Souleymane Sow ndax Souleymane Sow du artiste de mais nag lii mu def dañuy ñaan yàlla mu yokk ba yokku yàlla ndax mu ñëw jël sama góoteel bi xam ne yaru rek la def muy tan bombe waaye yéen toujours ngeen naan dafa réew tan musula réew benn doom la nee naa leen yéen ñaanal ko bu amee rakk rek nag dina yaru mu ñëw jël ko toftal ko ci boppam première édition bi Gibraltar lañ ko defee daa di nag balaa ñoo def dara dañuy jël ñëwoon démb honoré leen ba ñu xam ne UDAC am na lu mu bëgg ñu jël initiative un comédien un toit yal na ko yàlla mottali ndax seen loolu day bu sottee dinaa féex keneen féex keneen féex ndax bari naa ci morom yoo xam ni ci location la ñu ne mais nag ah, Souleymane Sow bu ma ko waxee rek tudd naa ñëpp su ma nee Souleymane Sow tudd naa tan tudd naa ñëpp waaye it di nuyu waale waa Riiru tribunal di nuyu sama waa kër ndoguli waa refek afek ñëpp daal laa nuyu mais nag yéen sama caméraman yu ñaawul yi ak sama doom ju jigéen ji yàlla na leen yàlla defal jàmm. Dj Ron ak Fama ak Sadam. waaw kon nag Dj Ron Fama ak Sadam yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla na ngeen toog ba yo jor sama seen télé tam pourquoi pas ah ameen ñu bokk ko. jërë ngeen jëf jërë. incha rendez-vous le 16 fële ca Grand Théâtre ak UDAC union union des artistes comédiens. maa la ko foofu moom ah dem naa màkk ba ñëw dem naa màkk ba ñëw waaye nag keba Kéba Seck moom damay jël kol gi denkané ko rek rek. waaw fas salsa. ñap sama ñam ah, ah, merci merci fils merci beaucoup. merci fayna la sama dom nday te ñu fekk la fi sax. tout les secondes fay nañ la bu baaxa baax. te ñu fekk la sa kër papa sax la mëna wax moy ki nga xam moy mooy tonton Diallo yàgg ngeen tay lan nga ko mëna wax. waaw xana di di ko jaajeufal rek di wax ni mom bay lay wote na wuy si nañu waye nak ah ñi wuy si dañoo mel ni bi bàyyi laay di randal géej gi dañ koo fekkee ndax sañ say yanj na teraanga ji doy na waaye kenn du Moussa Diallo dañ koy ñaanal nag fan wu gudd ak wér gu yaram ba chaque année mu koy gën a mën waaye Moussa Diallo nag du sunu du kese dañu bokk ak moom lu ñu mënta séddoo muy aar bi mu yaatu na te yaatal ko comprendre nga jox ñu sunu cër ba lépp lu mu xewle woo ñu ci donc ñun tamit bu appel bi ñëwee dañuy ñëw fekkee ko ak moom partage ko ak moom waaw dañu gis na itam dafa gën a yaatu yan bu njëkk ba ca kaw rek lañ doon làqatu après bu ñu pare wàccat mais waa lépp wàcc na ci mbedd bi dafa mel ne ñaar yi nangu waaw waaw waaw c'est normal parce que Moussa Diallo aussi tamit man damay wax ni moom l'océan de la générosité la ndax bokk na ci milieu art bi ñi nga xamante ni bokk na ci ñi gën a yëg artistes yi ñi ci gën a yëg ay ay àndandoowam ndax bu la gisulee dina la woo dina la nemmeeku dina xool ci lan nga nekk te liggéey bi nga xamante yàlla mën a boole ak moom dina la ci soññ bu baax a baax a baax te nag doomu aadama amul lu dul ku ko yëg boo ko yëgee da lay yëg Moussa Diallo artistes yi ci Sénégal yëpp a koy fekk si ñëpp ñëpp a koy si parce que noonu la mel bu nga jegee nga ñàkk koo jegee xanaa mu ñàkk xam fi nga nekk dina taal otom ba ci yow ñëw fekk si la xool noo toogee bu la gëjee dégg dina la woo xat la ba nga ràpp ne la danga maa bàyyi comprendre nga donc loolu noonu moom moo tax bësam dafay gën a yaatu te déwén incha allah dafay gën a yaatu waaw maa waa waa aca naxamo na koy itteel. li ma wax eh, mooy Ilimé rek sa xarit sa doomu ndey. waaw sama grand nag moom sama grand moom Moussa te comme ni ko Ilimé waxee sax dañoo bokk loo xam ne ñu ko séddoo dox tey suñu troupe bi ñu yor association bi dañu xayma ci rétinaal muy ACPA moom mooy président bi. ni ko waxee sànq bi ñu commencé appel bi avant ci kaw sax ci sal bi la woon ñu nekk sept personnes te bu ñu demee ba war ko mën a génn ci mbedd mi na yëpp di ñëw dañuy sant yàlla loolu nag ci mbaaxam nag. ci mbaaxam ndax Moussa du du lu kenn ku aye mu dem di remercier tamit artistes yi fi ñëw yëpp parce que artiste bu fi ñëw rek ñëwloo Moussa Diallo ñun nga ñëwal ñun nga ñëwal donc ñu ngi remercier artistes yëpp seen teewaay di ñaan yàlla yàlla yokk mën gi ci Moussa Diallo yokk kattan gi ba tànt bi gën a yaatu daal voilà. waaw message bi may jàllale rek mooy ñu gën a jàppoo gën a nekk benn. ndax tey boo gisee artiste bi fi ñëwee loolu la képp ki artiste mbégte la te amul artiste bu nekk Ndakaaru te ñëwoo fi am sax ñoo xam ne nekkuñ Ndakaaru ñu ngi fi teew donc loolu yàlla na ko yàlla gën a yàlla gën ñu gën ñu jubale gën ñu boole gën a boole xol yi tey di wax ci Sénégal yal yàlla def jàmm yàlla nañu yàlla yokk jàmm di kontaan ci sama télé TP TV bi ma fekkee fii tey waaw sama télé la ndax man waa TP waa TP laa waa Tivaouane Peulh laa donc mi ngi noonu daal mais lépp fi la tàmbalee donc yàlla yàlla def jàmm na comme euh, ni ñu defee woon tour bi rek ah ku ci nekk yaa ngi dégg ki nga xamante moom mooy tonton Diallo tonton Diallo tonton Diallo kii ñu toogal mooy ki nga xamante moom mooy Diallo moo am affaire de affaire ah moo nekk ni macha allah comme ni ko euh, saawaay waxee sànq rek bañ doon commencé sept personnes la ñu ci ci salle ci biir këram aju ci kaw eh, terrasse bi tey macha allah ñu ngi ne wàcc ci mbedd bi mu yaatu lool gis ngeen ñi nga xamanteni ñoo ñu artiste comédien yi nga xamanteni gëj na li gis sax na ngi fi sha allah mu doon lo xamanteni lu am solo ko lepp ci mom la mom moy jallo mom moy ki nga xamanteni tay li yëpp moko waral ndax leen dong muy mbaxam ak wayam grand ziar na ma leen di delo ziar di leen ñaanal yalla suñu kàddu yu fekk leen jamm sa yalla sutural leen sam leen 140 euh, quarantième quarante quatrième fekk bi mu doon lo xamne bi tay lañ koy tambalé mu nekk suñu dund tambalé tay képp ku fi ñëw yalla na wal yalla dindi tis gu nek ci yow ak nakar dindi du gu nek ci yow ak ñak ci barki maam Seydi tay tey sha allah sank wax naa ko lo commencé ci sal nek appel tay nga wacc ci mbéd mu fessel mhm. waaw euh, liñ ñu deug deug day sax. xam naa looloo tax parce que ñun ñett la ñu woon ci salle départ parce que Cambérène depuis defe naa 98 xaw ma 99 laa commencé def appel ndax lu tax ma ne dama doon def appel parce que dañ daan ñëw ñu xëyee dem jàmmalaay suñu jógee jàmmalaay ñëpp jubalu yoof añi ji foofu ngoon gi ñu dem ngor ñu jógee jàmmalaay ñu jubal fii man boobu jàllo tonton Tafa Astou Ndiaye ak 12 ans biñ ñëwee loolu nday saw sama soxna yalla naka fi yalla yagal limu jur yalla naka barkel mu dem uti ginar si ben copinam xam nga fekk ko fa sax gorom la fekk mu jox ko ben ginar ñu ray ko ñu commencé appel et suñu rayé téméré ginar ak fanweer ak ñatt kon sante yalla la kon affaire bi jëm na kanam franchement parler muy sante yalla vraiment lolu dal vraiment yokkute gi ñu ci gis dañuy ñaan yalla képp ku fi ñew yalla nga yokku ci barki alxuraanul karim ci barki appel bi vraiment mbégte rek lañ ci am mbégte rek xol bu neex rek wax dëgg yàlla ñi ko am na ñu fi ñëwoon daaw fekke wuñ ko ren tamit euh, ñi fi ñëw ren yàlla nañ ko fekk déwén loolu lañ leen di ñaanal ñëpp fekk ka teew yàlla may leen wér sàmma leen aar leen ba képp kuy ñëw gaare fee sa oto naan sama oto mënul dugg te artistes yi man aw ma ñu dul ñoom artistes yi yàlla na yàlla sàmm leen yàlla na yàlla guddal seen fan yàlla na leen yàlla suturaal man daal artistes yi damay ci ñoom rek damay bég ci ñoom rek waxtu wi su jotee rek sama xol day gën a neex. mais tey moom firndeel na ne yow nitu artiste nga parce que tey boo loo nitu artiste yi amaana ca salle ba ngay yem ba tey gis nañu presque ay centaine d' artistes yoo xam ne daje nañ ko tey macha allah koo wax itam mu ne grand moo baax rek grand moo ñu ko wan am na ñoo xam ne sax dañ naan sama papa ah, mais loolu yëpp ci sa jëmm ji tey mais tey ñu gis ne Sénégal itam am am na am na am na maanaam démb. Sénégal yëngu woon na xol yi neexuloon ba tey sax xol yi xol yi neexul mais tey dafa mel ni dara musul am Sénégal mais tey en tant que porteur de voix ban message ngay wax ci say xarit ci say fansak waaw dañuy wax rek ne mbir mu nekk ci waxtaan lay mujj fitna yooyu jaru ko pour man mais neexu la wax nag nit ku mer toujours day manifester meram nit ku am naqar toujours da koy wane mais lépp après dañ koy waxtaane pour man léegi nag comme yeewu nañ ci loolu parce que loolu war nañ ci yeewu que ci waxtaan la ñu teel a waxtaan pour ñëpp juboo ndax euh, ñu wootee waxtaan dañu war a waxtaan suñu wootewul waxtaan dañoo war a waxtaan ndax dëkk chaque at normalement damay dégg président chaque année décembre ma dis ko wala avril muy def muy def message de la nation discours boobu war nañ koy def chaque weer di waxtaan ak nit ñëpp ñu invité leen ñu toog ci waxtaan parce que réew dañ koy péncoo mais kenn du ko paacoo man loolu laa gis ba dëkk bi vraiment man su ma gisee ñuy xaañ di sànni après ñu toog waxtaane ko après ñu juboowaat man affaire daf may metti kon nañuy waxtaan guerre mondiale sax bañ ko dee réglé nañ toog taabal waxtaane kon nag yàlla nañu yàlla dimbali ba saytaane bañ a duggati suñu xol yi saytaane ci dugg rek loolu kese la franchement parce que affaire dëkk bi dafa yàqu de metti na trop nag parce que suñu demee ba ay seex di yóbbante police man keroog daf ma jàngal lu bëri ci àdduna ay seex kon am loolu lu nekk suñu seex waxuñu ñu bokk ndey ak baay ay seex xam nga dépassé na doyab ndey ak baay kon nag loolu su dee am ba ñuy yóbbante police kon am na lu nekk si ñun yal nañu yàlla génneel saytaane suñu biir yal nañu yàlla génneel saytaane suñu biir saytaane la rek saytaane la rek nañ ko jéem a xeex rek ku nekk na xeex sa xol waa <laughs> tey ñu gis ne tey macha allah sa wasila lan nga ñu si mën a may tuuti <laughs> euh, samay wasila. du ñun dafa am benn affaire boo xam ne dafa am mooy euh, bàyyi laay dafa woote dafa ne aaju boo daayi laay bi mu ne aaju boo daayi laay sama maamu ñëw fàq gëm si bi mu fàqee gëm si am sama maam waalo la jóge war mbaam ba ndakaaru gëm si bàyyi laay dafa agsi bàyyi laay dafa jóg Seydina Limaamul Mahdi al Muntazar ne ko lay jeex na kii lañ doon xaar ñii war war nañ ñii daw jéeg oto jël nañ ñii dox dox nañ kii raam ñëw na kii mooy lay jeex na mooy bàyyi lay kon nag su ma nekkee ci pecc pekk boobu sama meññ sama baay sama papa dëkk fii Ndakaaru ñoom ñun Medina lañ dëkkoon mu njëkk fa ubbi daara alxuraan kon sant yàlla mënul weesu ne samay wasila dama leen ñaanal parce que du ñu du ma ne samay wasila rek lañ su ma toogee ñoom nga xam ne ñii sumay frère lañ ñi fi nekk tey ji ñi fi nekkoon samay papa lañ te ñoom ñëpp ku ma ci jàpp loxo nga ne ma Moussa Diallo kon sant yàlla relation bu rafet laa am ak ñoom te vraiment duma toog benn semaine boo xam ne wax dëgg yàlla gisuma leen sañu ma ko xalaatuma ko te li may def aar bi vraiment ñoom ñëpp dañ ci ma ci gis ñëpp amul kenn ku ma critiqué ñëpp ci am mbégte ci man kon nag euh, damay santaat yàlla sama diggante ak samay wasila di ñaanal leen di leen ñaanal yàlla ñu yàgg fi lool ñu yàgg fi lool yàlla sàmm leen lool sàmm seen njaboot gépp vraiment ndax li xam nañ fi ñu bëgg a jëmi parce que doo dégg dangay dégg ñu naan laayeen duñu wax laayeen dañu duñ def dara déedéet duñu wax parce que ne tegg dañuy butéelu bërigo yu fees dal tegg la ñuy def moo tax loolu mais sant yàlla mais dañuy wax dañuy wax parce que tey jii su ma demee ci ñu ne ma moytul lii moytul lii kon ña ngay wax man mi nga xam ne porteur de voix la dama naan sëñ bi nee na ngeen moytul lii kon nañ déglu li may wax kon sëñ baa ngi wax du ma awma ci xaj ak seen mais damay sax na sama soxna Ndeye Sow ak njaboot gi mu fi am parce que appel bi moom rek mooy koo xam ne bii participer na ku dul artiste ni ma ko mën a waxee ak ay seen ak famem vraiment mu jàppale ma lool nag wax dëgg yàlla mu jàppale ma lool mais artistes yi daal aw ma seen fay artistes yi jox nañ ma xaalis jox nañ ma seen temps vraiment jox nañ ma seen idée vraiment yàlla leen yàlla sàmm quoi vraiment de artistes yi daal manuma leen fay artistes yëpp nag amul xaaj ak seen artistes comédiens yëpp nag yëpp amuñu xaaj seen ñëpp vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla tank ñu fi ñëwé woon ak yi ñuy delloo yépp yàlla na ko def yàlla def yiw yàlla bett leen xewlu xaalis yu bëree bëree bëree bëree bëri parce artiste dafa war a am xaalis artiste comédien dafa war a am xaalis tax nag namuñu dara mais dañu war a am xaalis parce que koo ci wax mu ne la ma dara mais léeg-léeg mu namm poche bu vide loolu kon yàlla nañ yàlla musal ci poche bu vide yàlla nañ yàlla sàmm aar ñu ñu jógee ndar sama jigéen ñi nga xam ne dañoo déplacé wu ndar ba fii ndax appel bi ñi nga xam ne dañoo vraiment mu jaral leen lu ne am na koo xam ne nag dama leen di gërëm sama rakk ji pap ak soxnaam vraiment ak ñëpp nag gaa yëpp dama leen di gërëm yal na leen yàlla sàmm suturaal leen aar leen ñëpp ñi bëggoon ñëw ñëwuñu yal na leen yàlla defal jàmm fañ nekk yal nañ fa am jàmm vraiment ñi ñu way dawlu yàlla yërëm leen xale leen àjjanay si yàlla dimbaliñ suturaal ñu allahuma sali ñu teewee ak ay déwén yu bëri bëri bëri bëri kuy ñëw indi sa oto ak xaalis wees dal yàlla na yàlla dimbali jërëjëf laay Maxtaar merci beaucoup allahumma salli ala sayyidina Muhammad télé askan wi TP TV suñu moomeel TP TV télé